léegi les commissions président Macky Sall moo leen woo ne leen. Euh, euh, mais euh, président mooy activer commission bi. ah moom moo leen woo ne mooy activer commission bi parce que moom la yoon may pour mu. activer léegi wax nga sànq ne dama bëgg rek leerlu wax sànq ne. yéen du ngeen jël sanction da ngeen proposer sanction donc yéen vous avez proposé la sanction au président Macky Sall euh, à savoir est-ce que dañuy exclure oui ou non euh, donc yéen da ngeen décider exclure. non nekk ñu di wax oui ou non de dañ naan ñun suñu xalaat li la. exclusion waaw après mu mu ni waaw moom mooy prononce nag léegi sanction. moom mu ni gongo. gongo mais man dama jaaxal mooy ci communiqué bi. dama gis parce que luñ ko tegal. Hmm. dañ kaa woon lii ak lii ak lii ak lii. mais mais loo ko jaru ko woon ndax moom moo leen woon ne leen. déedéet non ay dossier la yoroon du jox ko commission bi. ay dossiers la ñu doon jox ko commission que commission bi réunir. Ah. parce que ah. damay fàtt ni euh, dernier secrétariat exécutif national am na ñu jóg quand même. Mamou Saleh moo ci li nga xam ne jàpp nañ ni. ay taxawaay rafetul la ay taxawaay xam ne defarul. parti bi li nga war a seen parti bi li nga si war a plaindre bëri kay euh, euh, Moussa xëy na daf leen commencé déranger wala da jàpp ne soxlaatu leen ko ngeen ngeen ngeen kàjj ko mu dem mais mais mais bëgg ma taxaw ci xale yi nag temps baa ngi dem te am na yeneen yu la fi laaj bi euh, yeneen laaj yu fi taxaw mais mais mais xam nga moo bëgg a xam Benoît quand Euh, commission de discipline lu doy ne commission de boo xam ne euh, dafa war saytu comportement comme ni nga ko waxee discipline yu mel noonu euh, boo xam ne dafa quand même ña koy ña koy yor dañu war a saytu daal en grosso modo image yu parti bi ah, n'est-ce pas kon lu mel noonu est-ce que jaadu na surtout que pour la première fois en tout cas ba APR di APR ba ne maa doog di ngeen dàq kenn donc ngeen ngeen war a réunir léegi est-ce que rafet na Euh, mu euh, baal ma mu nekk trois pelle deux pelle trois tontu ñett nit ñoo dajaloo <coughs> euh, dàq ku mel ne Moustapha Diakhaté ngeen dàq ko ci parti est-ce que loolu c'est ça fait sérieux non non attends dafa ndànk xaw moo tax seen bi nit ñaa ngi koy kokkal di ko di ko reetaan ci di ko nu ne ñu leen di nu ne yéen ci réseaux sociaux yi ah. parce que c'est pas sérieux ñi dajaloo dafa am lu ñu représenté hmm. kuréel

Barju moom mais c'est important parce que. non non non attendez bu parce que ku war a taxaw quand même euh, war a war a war a décider de l'avenir euh, d'un camarade ou bien d'un militant qui se trouve être une personnalité bien connue bien appréciée des Sénégalais wax dëgg yàlla ñooñu ña war a prononcer dàqam dafa war a nekk ñu am tamit wax dëgg dëgg une certaine légitimité ñu nit ñi xam Abdoulaye Barju moom kenn mësu ko xam. ba pare rawatina dégg naa ñu ni moom la Moustapha Diakhaté remplacé woon ci yow moom kenn waxaale wu ko xam nañ la euh, euh, mbaw mais ña fa ne ci ay kàngam ay kilifa euh, buñ ne nee Ablaye Badji man je préfère que quelqu'un comme ay sage comme ay entre guillemets ay Mahmoud Saleh yooyu nga xam ne dégg naa seen seen seen boobu moo fa ne woon Mbaye Ndiaye gis nga neen Mbaye Ndiaye euh, def dëgg-dëgg suñu papa jooju nga xam ne moom kenn du ko woo ci ay dàqaate moom euh, donc ay Mbaye Ndiaye ñoo xam vraiment ay personnalité quand même ñu ñu ñu ñu ñu mag euh, ñu mel ne à mais yow la fa nit ñi xam dans une moyenne mesure Abdou mbaw ak un Badji qui est sorti de nulle part est-ce que loolu dëgg-dëgg Euh, euh, c'est sérieux pour parti bu day ne APR parti au pouvoir ak la ngeen ëmb ci ay ay kàngam wala kenn nangul du bokk bokk ci commission de commission de discipline ba yéen dong yéen nangu xaru <coughs> alors vraiment Aïssatou euh, da nga may may occasion ma wax ci ab Ablaye Badji mm-hmm. tey ci ñuy ànd ak Macky Sall yëpp moo ci gën a yàgg ak Macky Sall. mais n'est pas connu. Ah, déglul des Sénégalais yow yaa ko xamul. Ablaye yi mooy trésorier général parti. mais réew mi xamuñu ko déglul Ablaye Badji. cinq responsables yi ñu njëkk nommé ci parti bi ci la bokk Ablaye ji mooy sunu responsable euh, départemental de Bignona. taxul àddina xam ko. mais peut-être c'est pas un homme de communication mais dafa yor benn rôle éminent ci parti bi. mais pourquoi moo décidé de la la mort moom moo décidé moom la ñu dénk commission bi. il est le président de cette commission parce que moom moo ko nangu. moom la ñu ne mu nekk président commission depuis mais commission boobu c'est pas pour moi c'est pas du ay privilège quand même. mais privilège au contraire au contraire. c'est quand même une c'est pas de gaieté de cœur. c'est ça une lourde de gaieté tu que ay surtout c'est de gaieté de cœur la toog. di entendre un camarade d'abord d'abord d'abord tu sais pourquoi. borom njaboot. xam nga tu sais pourquoi. Hmm. d'abord. Euh, parce que euh, jàpp naa ne benn camarade bu eggee ci loolu rek. Hmm. def na loo xam ne yow yow mii sax nawloo ko. Hmm. rafetul pour arriver à cette extrémité parce que encore une fois c'est des cas extrêmement rares président Macky Sall il privilégie toujours waxtaan ak jéggale te ñoo xam nañ ko mais mais man pourquoi euh, euh, président Macky Sall mu déglu mu may chance Cissé Lo euh, mais parce que Cissé Lo xëy na moo moo moo nangu moo nangu may boppam chance li dox ci entre est-ce que Moustapha am ñu euh, président woowu ko est-ce que woo na ko woowu ko xamoo ko. est-ce que amul ñu ci dox. mu xam la ko xamoo ko moom nee président woowu ko. moom nga xam la war nee naa du ma commenter ay waxam. li am solo mooy man. Euh, bu am situation mu tolloo man du ma def euh, yëfu c'est-à-dire euh, philanthropie daal. mais quand même mënoon ngeen déglu tamit Mbaye Ndiaye parce que Mbaye Ndiaye. alors Mbaye de Mbaye li may Ndiaye waxee Sénégalais yëpp ko gërëm. waaw le cas de Mbaye. damay fàttali d' abord ci commission bi la bokk. ba ñu en tant que camarade Thiès yi ba ñuy sanctionné. loolu yàgg ci la bokkoon. loolu 2013 dégg ci la bokkoon. la bokkoon léegi xëy na. moom affaire bi bett na ko parce que ba muy bañ koy woo. di ko ko convoqué mu ngi ci avion bi. donc bu wàccee rek. Mm. gis loolu xëy na il n'a pas eu assez de cent froid mm. pour mën a juger mbir mi mais ñëpp xam nañ ni quand même Mbaye Ndiaye. c'est un camarade. ba ngeen ko wooyee dafa ne dafa dafa ne mënuma ñëw. non non dafa ne moo tax ñu absent excuse wala. daa rek mu expliqué la. waaw <laughs> Mbaye Ndiaye jotuñu ko. Ah. il était un voyage. en transit bi nga ko absent excusé kon. waaw déglu ma. loolu erreur la ba ma egsi dinaa egsi mbay. Mhm. Euh, man ba ma déggee réaction am dama ko mhm. parce que seq nañ ko. Mhm. sama mag la sama xarit la am naa sañ ko wañ wax ko lu ne moom am na sañ-sañ wax ma. ma ne ko grand li ma dégg nii lan la. on te wax dëgg yàlla. moom. xolam bu rafet rek. la ci jiital déglu ma rek déglu ma Mbaye <laughs> est comme ça avec tout le li mu wax tamit lu leer la. Mm. mu ngi solidariser wu ak commission décision commission bi. mais mais li mu ci wax moom mooy. comme nag moom dafa bëgg toujours bu kenn ne moom dana dox pour indi ko. Mm-hmm. du problème ko. en tant que directeur de structure bu doon sama sago. doo exprimer wu nii. da ngay solidarité yem foofu parce que bu nekkoon ci commission bi. mais mais mais yéen a dafa parce que yéen a Ndiaye bind entre parenthèse quelque chose que personne n'a jamais vu absent excusez. waaw alors euh, je ne sais pas dans cette dans quelles conditions c'est arrivé de toute façon commission bi dafa am communiqué bi yow. Euh, euh, communiqué bi comme ñëpp laa gisee mais mm. participant ci ñi nga xam ne ñoo ko xalaat. Mm. alors. dañuy bind présent yi. parce que hmm. commission la. Ah. war a wax ñan ñoo absenté ci commission bi. Ah, mais nee naa la condition xëy na yu ñu bindee communiqué bi. ak pression bi. bàyyil Abdou Mbow. non Abdou Mbow la ah. bàyyil Abdou Mbow. xam naa bind <laughs> ñu tàpp noo ko xamee. Abdou Mbow. non non il faut pas fonctionner comme ça. il faut pas fonctionner comme ça wax naa la bon nous portons toute cette responsabilité. mais moo ko bind nous l'assumons tous. moo ko bind euh, je considère que. Mm. Euh, li am solo mooy euh, commission bi réunir na de manière régulière. Mm. def ko ci yoon mm. viser ay articles yoo xam ne ci statut yi la ñu nekk a ci règlement intérieur bi proposé na sanction euh, pour que président prononcé wu ci. d'accord lépp lépp bala ngeen ngeen la des ñi wax ñëpp. xëy dañuy wax sous le coup de la motion mais. Hmm. da ngay ànd ak dal. waaw ah, mais mais mais bon waa xam lan laa bëgg a laaj ma jeexal que temps baa dem te euh, bëgg naa ñu nag ubbi pare beneen paquet muy dialogue national bi ndax euh, yow yaay plénipotentiaire yow yaay jiite ñi ñu toogal. c'est quoi maa jiite ñi toogal. Euh, nguur gi non pas nguur gi. <laughs> nekkul benn yaakaar ñu bokkal majorité présidentielle bi. ci commission. Euh. Euh, politique. du dialogue national parce que dialogue bi huit commissions la. d'accord donc dont la commission politique donc a la commission socio économique et sociale. d'accord commission bior environnement et cetera et cetera man maa euh, jiite plénipotentiaire yi nga xam ne ñoo fa nekkal. d'accord donc euh, d'accord ci laa ci laa nii euh, mais pour ma jeexal ak Moustapha Diakhaté mooy man man li ma leneen li nga xam ne moom laa moom laa ci bëggoon yi mooy quand Euh, si seen parti bi dama jàpp ne euh, parti moom euh, dàq dafa war a nekk exception. absolument loolu d'accord naa ci ak yow moo tax mu nekk exception voilà parce que ba 2008 ba léegi musul mm-hmm. am mm-hmm. donc exception la waaw donc ku ko def dafa fekk nag mu nekk ay faits yu grave mais tamit mais tamit nee nga ko dàqee dafa xaw a brutal aussi mm-hmm. c'est voilà moo la xam moo la gën a xam ne moom ba ñuy def ba ñuy teg commission bi 2013 mu ngi woon secrétariat bi toog approuvé ba ñu nommé naa mu approuvé ba ñuy sanctionné waa Thiès mu approuvé ba ñuy sanctionné ab Alioune Badara Cissé mu approuvé mm-hmm. kon man mi suba commission mën na ma convoqué ma defee dara ñu daal sama kaw li ko jar donc mm-hmm. nit nit boo nekkee ci kuréel da ngay nangu kuréel nu muy doxee mais mais xam nga foofu euh, lan laa bëgg laaj pour jeexal fa euh, euh, am na ñu leen reproché yéen membre commission de discipline quand même yéen ñëpp lu euh, tax euh, euh, ngeen nangu vraiment ce sale boulot bu weesoo faire plaisir à au prince Macky ou bien au roi Macky c'est quand quelque part pour espèce quelque tàngalment à la fin de la journée parce que Badji moomu abla Badji gis naa nga defar ko vraiment benn kii defar ko CV bu nice bu bu policier et tout mais quand Euh, déggal ma ko benn nomination bu rëy bu baax boo xam jox nañ ko ko euh, yow dëgg-dëgg euh, nekkoon na fi ministre wax naa sànq hors antenne ne CNDT bi franchement man li ma la yéene mooy loolu ëpp loo ndax ndax nag yaa ëpp nag CNDT boobu mbaw n'en parlons même plus Mbow feere nekkoon ci assemblée nationale ba président Macky Sall am nu ma ko kajee kajj bu nandite kajj élégant jox ko benn commission et cetera moo tax muy sax moom itam yenu affaire porté ko xëy na bëgg na bu lépp weesoo dàq ji bu jàllee comme jàll na nii euh, après ñu woo leen yéen trois euh, euh, jox leen quelque chose ah. benn promotion est ce que tu leen si benn buzz noonu benn buzz benn jaar leen si Moustapha Diakhaté pour quand même defaru waale ah si si cinq ans yi fi dese ngeen defaru waale tuuti ki nekk ministre kii nekk DG wala yu mel noonu alors Aïssatou dama lay fàttali 2013 dañu teg commission bañ koy teg maa ngi ci gouvernement mhm. Ablaye Badji nekk chef de cabinet. Mm-hmm. Abdou Mbow nekk vice président assemblée donc utuñu daal. mais léegi ñaa ñoo déglu ma rek déglu ma non déglu rek yow tamit xam déglu naa la bu baax. nga défulé wu <laughs> dama lay tegal. bañ koy teg boobu euh, xëy na. Euh, boobu mm-hmm. euh, ñu ngi ñu ngi nekk ci ay responsabilités yu am solo. Mm-hmm. nekk ci nag ba léegi. CNDT parce que jàpp naa ni na koy waxee xamoo ko. wala da nga koo ah, ma dafa xaw a ndaw rek ah, xaaral ñëw. Ah, a yaa ko mag waaye déglu rek déglu xam tuuti. Mhm. d'abord jibokaa. Mhm. li mu lu tuuti. parce que moom du nangu lu tuuti. Mhm. donc ku ko uutu yoroo lu tuuti. dëgg dëgg. yaa tuuti woon deuxièmement. CND ku fa nekk. ca rang de ministre d'État. tu as ministre d'État. Ah donc man plafonné naa xam nga lu ñuy wax plafonné. naa. ci mbiru gouvernement. wala même si bokkul ci institution yi nga xam ne dañu nekk ci euh, nu mu tëdd constitution bi mais institution loge dans la présidence de la République. Mm-hmm. c'est une fonction éminemment importante parce que président ba mu koy teg pour jàppale collectivité territoriales yi. jàppale euh, gouvernement bi ci li nga xam ne mooy réforme bu mag bi mu fi tegoon muy acte trois de la décentralisation mm-hmm. ñu ci liggéey bés bu ne donc CNDT du ci lu tuuti mm-hmm. xëy na euh, ci formule mm-hmm. ak nu muy doxee on a plus force de conseil que d'exécution. Mhm. moo tax du ñu def ay action yu déclare wala yenn affaires yi mais liggéey bu am solo ak bu rëy la. d'accord kon ko yor. doo ko tuuti parce que jëboka encore une fois lu mu lu mu yor mënul tuuti. dama ne au moins euh, grand yow. Euh, euh, courage non ñun ñëpp non surtout il faut respecter quand les gens de cette instance.